asalaamaaleykum mbokki julliti mbokki taalibe yi mbokki Touba Argentine ak li ko wër yéen a ngi jàkkaarloog seen télévision Touba Argentine TV bu ngeen gisee toogaay bi nag xam ne am na lu ko waral lan moo waral toogaay bi mooy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ñu naa ko 18 safar muy màggalug si Ahmadou Bamba Xaadim Rasool tey ñu teewoon fii ci Touba Argentine bu ngeen gisee plateau bu am solo bi it ngeen xam ne maanaam màggal gi waa Touba Argentine ñu ngi koy waajal waaye nag lu jiitu loolu du ñu def lu dul di leen présenter suñu sponsor bu am solo bi nga xam ne mooy Vesel Union ànd ak ñun ci liggéey bi depuis bi màggal gi taxawee léegi ñu ànd ak ñun ci liggéey bi ndax it di wax mbokki taalibe yi nga xam ne ñu ngi ci réew mi képp koo xamante ne ni dugal nga application bi ci sa téléphone danga am vingt cinq pour cent discount loolu nag lu am solo la ci ñun kon bu ko defee rek képp koo xam ne yaa ngi seetaan Touba Argentine TV nga bàyyi ko xel muy Western Union boo ko dugalee da application bi da nga am vingt cinq pour cent discompte kon nag euh, loolu lañ leen doon wax ci Western Union ñu bàyyi ko xel kon bu ko defee rek ki nga xamante ne nii mooy Soxna Ndey Soxna Ndey di defar bisaab bu am solo fii ci Touba Argentine di ko jaay mbokki sénégalais yi am na bisaabu xob bi nga xamante ne nii moom lañ miin ca Sénégal daf koy jaay fii képp koo xam ne bëgg nga ci mën nga jokk ak moom ci cinquante 50 15 64 11 bu ko defee ñu baamtuwaat numéro bi rekk ci espagnol muy 11 50 15 64 11 kon bu ko defee rek mbokk yi sponsor yaay noonu ñu bàyyi ko xel muy bisaab bu am solo sama mbokk yi bala ma leen di nuyu wala bala ma leen di dalal ma bëgg ngeen parawaaral ma bisaab bi ba xam neex na am déet. <laughs> waaw bisaab bi soxna si fii la koy defaree ci réew mi muy bisaab bu am solo di bisaab bu Sénégal bi ñu miin muy bisaab bu xonq bi nga xam ne day faj tooy waaw kon mbokk yi bu ko defee rek ñu jublu ci liggéey bi ki ngeen gis ñu toogal mooy maam Thierno Amar kii di moo du seen nga xam ne li waral seen toogaay bi ñoom ñooy ñu organisation bi nga xam ne moo jëm ci màggalu Touba tey ñu ñëwoon fi ngir def ay leeral yu am solo yoo xam ne ci màggal gi la jëm kon du ñu def lu dul jox leen micro ñu nuyoo ak mbokki Argentine maam Thierno ñu ngi lay nuyu. Eh, jërëjëf sëñ ñu ngi lay fay salaamaaleykum. ñu leen di nuyu mbokki jullit yëpp mbokki taalibe yi mbooleem ku nekk Argentine di ñaanal sëñ Sidi Muxtaar na fi yàgg lool te ànd ak wér naka noonu eh, di ko ñaanal mbooleem njabootu sëriñ Tuubaa gi yëpp di rafetlu bu baax a baax liggéey bi li ñu fi bàyyi nag mooy ñu fi toogal waa mbooleem waa fédération bi ci njiital sëriñ Yankuba Gaye ak mbooleem jëwri ñi nga xam ne ñoo aju ci fédération bi yëpp mbooleem fu daayira nekk rek ñun nag ñu féete ci wàllu organisation bi nga xam ne ñu ngi ci ànd ak Serigne Bamba muy jëwriñ ak Serigne Modou Sène mi ak mboolem ñi aju ci xidma bi yëpp ak mboolem ñi aju bi yëpp kon xam naa dañuy wax sëñ Assane ñu leeral li nga xam ne moo ñu fi indi ci wàllu organisation bi. jërëjëf jëwrin maam Thierno Amar ci nuyoo bu am solo boobu nga xam ne nuyu nga ko mbokki jullit yi kon du def lu dul jox jëwrin mot seen moom it mu nuyoo ko mbokki jullit yi Serigne Modou ñu ngi lay nuyu. waaw maaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi delloo ziar bu baax suñu Assane ñu ngi lay nuyu di nuyu ñëpp rek waaw ñëw fi ngir leeral rek maam liggéey bi ñu teg suñu loxo muy wàllu organisation moo ñu tax a jóg ngir ñu leeral ko kon xam naa jëmbut suñu joraatee kàddu gi rek li ñu tax a jóg daan ko leer incha allah. jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan dégg ngeen nuyoo bu am solo bi sëriñ moo du seen nuyoo ak maam Thierno Amar maam Thierno Amar depuis bi ngeen taxawalee li nga xamante ne ni moom mooy. fédération Touba Argentine bi ne Touba Argentine fédération bi ñu jëloon li nga xam ne mooy wàllum programme teg ko ci seen loxo bi màggal gi teroog léegi pro programme boobu ana nan ngeen ci taxawee lu jiitu ñuy laaj jour màggal ga nan ngeen di taxawee programme yeeg yooyu maanaam depuis bi ñu leen joxe programme beeg léegi màggal gi teru programme mu màggal gi ana nan ngeen koy taxawee. waaw ñi ngi ciy doon dox ay dox yu am solo li njëkkoon a commencé mooy di def ay réunion bi weer wi demee ba teru daanaka chaque altine ñu ñu daje mboolem ak jëwriñ yi ak mboolem yi ngànk wàllu organisation bi dem nañ fépp foo xam ne tamit daayira nekk na fa am dem nañ ci kër yi tamit pour wàccaayu màggal gi dem nañ ci daje nañ ay daje tamit la laaj ñaane ko ñëpp ñu ne ci dëkk bi koo xam ne sa xalaat mat na ci wàllu organisation ak wàll luy doxal màggal gi bu yo boole yooyu yëpp nag daal di koy fas yéene tënk daanaka nag démb la doon tënk lu jëm ci wàllu organisation bi ba tey ji moo taxoon ñëw fi bëgg ko leeral sëñ Assane moom la ñëwoon fii tey bëggoon a leeral lépp li nga xam ne moom lañ fas yéene doxal ca màggal ga ak kuy ñëw ca màggal ga ni ngay def ak lan lañ bëgg nit ña doxe ko fa bu ko defee ngir lépp rek bis bi jag waaw kon bu ko defee rek ñuy continuer li nga xam ne mooy liggéey bi mooy nan ngeen bëgg nit ñi doxe ko fa bu ko defee nga jox ñu ci ay leeral yu am solo ngir ñu ñuy seetaan mën ko bàyyi xel ba bu keroogee ca bés ba rek kenn du jéggi sart yi. jërëjëf sëñ Assane comme li ma waxoon léegi lay baamtuwaat rek comme li Serigne Touba na allahu yansur nii wal xalqu tatbaw nii fil barri wal bahri saa nafin bila dararin képp ku ne xam ne Serigne Touba njariñ lu ànd ak lor la te boo gisee kër kër jéeg lépp lu ñuy def rek pour bëgg a jariñu Serigne bi moo tax. moo tax saa su ne nag dañuy laaya biran suñ biir pour fu mën a daje tamit ngir jëmbi sëriñ bi ñu am fa ngërëmul sëriñ bi ndax mooy li am solo ñu ngi soññee nag ci wàllu organisation bi képp koo xam ne si na màggal gi itteel na la dëgg-dëgg te xam naa ne ñëpp ñor na leen yoor-yoor mooy màggal gi ñu ngi sàkku bépp taale ba bu nekk ci dëkk bi ak fu mu mën a doon mu teel a ñëw fa suba teel ndax bëgg nañ maanaam njàng mi neuf mu commencé incha allahu rabbi kon nag képp koo xam ne ñëw nga ñu ngi sàkku nga ñëw sol li yére ba nga gën a fonk xeeñ parfum bu neex sol solin wu yiw wu méngoog bisub sëriñ Tuubaa bi bu ko defee boo ñëwee koo fa fekk mu sol ba mu yor badge wala mu yor déguisement fu mu la wax nga jaar ne nga jaar ne te bañ a jàpp ne day lay jaay sañ-sañ wala da laa ëppale ci liggéey sañ bi wala dool dafa fekk ne ñëpp mënuñoo ànd defandoo lépp waaye dafa am ay nit ñoo xam dañ leen tànn pour ñu organiser bis bi bis bi nag ki nekk ca di organiser ki toog di jàng alxuraan ak ane ca waañu ñoom ñëpp ci am boo ko dee def te sëriñ bi tax rek te nga sellal ko rek yéen rek yéen a ci am sëriñ bi moom buy fay ñëpp lay fay kon mbirum liggéey sëñ Tuubaa li ci am solo muy liggéey na sell te rafet rek ñi ngi sàkku nag képp ku ñëw nga sol lu rafet te dimbali ñu ci mooy luy jëm ci xeetu seen wala luy ay jaaro wala leen loo xam da indi day indi lu méngoo wut ak bisu sëriñ bi wala koo xam day sol ay tubay yu wàcc di wàcc ay tubay mbaa ngay li gën a rawati mbaa ñuy jàng alxuraan ji nga xam ne si muy waxi su yàlla suñu boroom ngay wax wala ñuy jàng xasida yi nga xam ne bu koy jàng sëriñ bi day biir ngay wax wala ngay coow wala ñu ne toogal fii nga ne fee lay toog wala nga ñëw di tàllal ay tànk rawatina comme ni ko suñ joon wax ci wàllu sécurité wala nga ñëw taxaw ci bitti di di nit ñi maanaam bëgg nañ képp ku ñëw fii yi nga xam ne si moom la ñuy organiser di di fa teg nit ñi ñu jublu penk jàng alxuraan bu la ñëwee nga toog foofa lépp loo soxla dana la fa fekk maanaam te bàyyi xel bu baax euh, ak dëkkandoo yeeg dajaloo beeg cooloo beeg yeeg maanaam képp koo xam ne jigéen nga boo ñëwee fan la teg muy ci waa waa ci jigéen ña na nga fa toog képp koo xam ne góor góor nga ñu ngi lay ñaan jataayu jigéen ñi bu fa dugg ndax loolu dañ ko fay bañ danañ ko séparer danañ teg ay kii yoo xam ne fee la góor ñu war a toog fii la jigéen ñi war a toog te képp koo xam ne comme ni mu waxee ñëw na la ne la defal lii bul jàppan dalaa yàpp wala dara ngay gis sa bopp ndax fa ngay ñëw muy màggal nga njariñ moo la fa indi ak sàkku ay xéewal ci bis bi ndax bis boo xam ne si loo daan wut téeméeri at mu jafe boo ko sàkkoo ci benn bis boobu am ko nit war naa not bakkanam def kem kàttanam ba bis boobu mu def ci lu mën ci rafetal ci lu baax ci yiw te bañ a yëkkati xolu bañ a yëkkati dara ndax bis boobu bu jàllee déwéne te ku la ci raw dootoo ko dab ba faw déwén rek te bu déwénee bu defee bu defee nam defaatoon tamit doo ko mën sa dab te kenn bëggul ku la gën kenn bëggul ku la raw li ngeen ñu mën a dimbalee ñun ñu yor organisation bi mooy fu ci waaye ñëw teel a ñëw boole nga dem liggéey ba mu guddi nga ñëw taxaw ci ginnaaw du coow loolu lu gën yàq liggéey bi ci la bokk teela la ñëw ndax màggal gi yoor yor la teel a ñëw nekk ci sàppe yi booy jàng alxuraan nga jàng alxuraan bu fekkee da ngay jàng xasida nga jàng xasida bu dee da ngaa yor sa kurus du wedd nga yor sa kurus du wedd sol sol rafet yiw toog ngir jëm sëñ bi te fas ci li nga bëgg xam ne sëriñ bi moom xol yi ak pas yi ak rafetal bi rek la soxla ci ñun waaye lépp suñu borom defal na ko booy ñëw ci koo xam ne nag dara du lor lépp njariñ la boo fa amee lor yaa ko teg sa bopp kon nanu dimbali li lay rasul ñun Argentine taalibe yi fi nekk ay jàmbaar lan ay murid lan waaye benn affaire moo des mooy éducation bi dafa des ci dafa des ci ñun te ku wax nga ne ko fii laay taxawala nangam loolu ak yàq la ña taxaw gënuñu la gënuñu laa jege sëriñ bi xëy na sax nga leen ëpp fas fas waaye ndigal moo leen fa teg kon nan doxat ñooñu yombal liggéey ba kon ñi ngi sàkku baax sëñ Assane lool daal bëgg nañ ko jàll bu fekk am nga beneen laaj boo ñu laaj ci wàllu organisation bi tamit ñu ñu ñu kon nañ jërëjëf jëwrin laaj bi tontu bi am na solo lool kon bu ko defee li ñu lay laaj rek mooy képp koo xam ne yoroo badge moom boo ñëwee ndax da nga bokk ci liggéey bi am déet jërëjëf sa Assane loolu tamit danaa sawar a tontu ndax ñu dimbalu ñu rek lu mat ñaar fukki fan ngi nii baanaka daanaka ba lu ñuy tëdd trois heures jot di dem ci rajo yi di wax di dem ci daara yi daayira yi di déclarer fu ne ne liggéey bi dafa changé ndax fédération moo fi nekk boo xam ne si sëriñ Yaaqob moo ko jiite ak mboolem jëwriñ fépp daayira bu ne dëkk bi yaa ngi ci biir fédération bi am nga fa jëwriñ soo ñee nan fa ne képp ku bëgg a tàbbi ci liggéeyu màggal gi ak liggéeyu bu fi mën a doon na nga joxoon su joxe su numéro pour ñu woo nga ba boobu ba léegi ñu ngi def ba démb moo ci mujj képp koo xam nag àddu woo ci woon ba léegi li lay rasul boo ñëwee te yoroo badge bul ñëw rek di jël bool di teg yooyu da ngaa defar da ngay da ngay da ngay defar mais da ngay yàq na nga ñëw toog ba jekk ñu fekk la fa di la bernde li ñu bëgg boo ko defee toog rek di jàng say xes de wala nga yor sa kurus ñu lay bernde tamit yaa koy yor te nekk liggéey ba rek a yem ñii dañuy nekk fii ñii nekk fii mais ñëpp mënuñu àndi organisation ku nekk dafa am lu ñu la jox te pàcc bu ci ne jox nañ ko jëwriñ mu koy doxal lam la cee wax na nga ko doxal di wax na tamit yi ñu séddale muy jëwriñ ku nekk fan la jox na leen leer na am na na ay superviseur yoo xam ne ñi ngi ci biir màggal gi di xool képp koo xam ne côté ban la jox am na faay wala dara bu ëllëgee bu nu dellusee ñu loolu ñoo bu nu dajawaatee lu nuy lijjanti lay doon kon képp ku ñëw yoroo batch yoroo di ñëwal toog li laay rasul te bañ a ñëw jël di teg lu amul ndigal ah, ndigal nit booy dox da ngay dox ci ndigal te kon woote na lu ma ñaari fukki fan ñu koy woote li laay rasul nan dox ci ndigal ku yorul batch wala nga yoru di gis ñëwal nga toog bul ñëw di jël ci liggéey bi di def loo xam ne def loolu ko di yàq loolu mooy indi jaxasoo gi waaw jëwrin maam Thierno ñun seetlu nañ fii ci Touba Argentine ne dañoo dem ba am problème mu hôtel pour ñu louer ñu ko pour saal yi ñuy màggale loolu nag li ko waral mooy ñi nga xam ne ñooy mujjee ñëw ci màggal gi taxaw ci biti di ñuy wax di molester li nga xam ne moom mooy dëkkandoo yi ñoo ñooñu ana ban message nga leen di sànni ci màggal gi. Eh, sawar a tontu waaye dafa laalaal ci wàllu sécurité mais danañ ci wax tamit dimbale ci suñu jëw suñu suñu mbokk mi jëwriñ John mi nga xam moo jiite wàllu sécurité bi la dañ leen di wax na fi nii ma defe màggal gi muy Sáenz Peña mbedd mi yaatuwul te six collectif six lignes yu collectif woo ñi lu mat quatre ñi ngi fay jaar te foofu xat na xat na boo xam ne am na ñaari station mente yoo xam ne ñi ngi jàkkaaroo fi ñuy màggale képp ku fi yor sa oto te bëgg a gaare ko ci biir nga fay moo gën nga koy gaar ci digg talit bu gaa yi ñëwee wéeru fa di coowaloo te visinoo yi dëkkal mooy suñu dëkkandoo yooyu chaque jour bu nu fa amee programme dañuy coow ñëw di indil borom hôtel bi problème ba ci ren ji sax bi ñuy jël hôtel bi borom hôtel bi daf ñoo takk takk ba fay ko ñu lu seet loo xam ne bëggul woon sax ñu jël fa te foofaa sës ndax ndax problème yu ñu fay am képp koo xam nag sëriñ bi moo la fa indi te nga bëgg ñëw ci liggéey bi na nga ñëw ci biir salle bi toog te bañ a taxaw ci bitti di molester hôtel yi di fa jaar yooyu di indil problème man bu ko defee suñ problème suñ programme mën naa am problème te képp ku ko def yaa ngi tooñ yaa ngi tooñ yaa ngi yàq liggéey boo xam ne ngir jëmmi sëñ Tuubaa rek moo tax ñu koy liggéey moo ñu koy liggéey képp ku fi am koo bëgg a waxtaana wala nga am sab xarit négal ba mbir mi passé nga dem këram nga seeti ko waaye fee kennal sëriñ Tuubaa gi nga xam ne si sant suñ borom da cee ba tax ñu koy sant mboolem ci àdduna àdduna ba ci àjjana nan ko ko sant ku ciy xool nag ba bis bi raw la wala ngay indi problème wala nga ni ci bit na la leer na bokkoo ci màggal ga màggal ga moom fii ci Argentine képp ku nekk ci mbedd ma bokkoo ci màggal gi ku nekk ca mbedd ko ci màggal kon nañ ñëw ci biir toog ba màggal gi jeex dem seen ku mënta toog ci biir nga boo nga dem sa nga dem sa kër waaye toog taxaw ci bitti moom ñi ngi koy bañ ñi ngi koy bañ kon nañ dimbali ci loolu rek. jërëjëf maam Thierno Amar kon bu ko defee rek bu dee mën nañoo xam programme bi ana nan lay tëddee. waaw sëñ Assane programme bi ñi ngi ko tënk ci euh, ci al 9 ba 10h nii jàng alxuraan alxuraanul karim ak xasida yi yëpp. incha allah rab ndax ku ne xam ne daanaka màggal gi yoor yoor la bu boo paasee ku ñu góor a sekk rajes dana jàng 10 heures ba 10 heures 30 bu góor a sekk pare kuréelu Serigne sàmba dana jàng 10 heures 30 ba 11 heures 30 bu paree Baye Ibrahima Mbaye rajas dana jàng 11 euh, heures ba 11 heures 30 bu paree kuréelu Maroon dana jàng 11 heures 30 ba midi 40 bu pare Serigne Cheikh Khasida rajas dana jàng midi ba midi 40 bu paree kuréelu linière dana kuréelu linière Touba linière danañ jàng midi 40 ba une heure bu buñ paree ñu jullitis tisbaar daa di añ buñ paree ñu julli tisbaar daa di añ buñ añee pare 14 euh, heures 20 ba 14 euh, heures 14 heures 20 ba 14 heures 40 Serigne Sidi Diouf xasida dana jàng. buñ ca paree 14 heures 45 ba 15 heures 35 euh, kuréelu Serigne Saliou dana jàng buñ ca paree 15 heures 30 ba 16 heures 15 euh, heures 30 35 ba 16 heures 10 Serigne Dame Cissé conférencier dana def waxtaan 16 heures 10 ba 16 heures 30 ñu julli takkusaan 16 heures 30 ba 17 heures 30 programme fédération bi ak ñu dalal gan yi mooy ñi nga wàllu lu jëm ci wàllu yëgle programme fédération bi ci waxtaan yi ci sëñ Yankoba ak sëñ Bamba ak mboolem ñi jëwriñ ñi aju ci ci ci ci ci fédération bi buñ buñ buñ paree kuréelu capital 17h30 ba 18h30 dana dana kuréel dana kuréelu capital dana jàng 18h30 ba 19h10 Serigne Mourtala Serigne Mourtala Touré de conférence moom it dana def waxtaan bu paree 19h10 ba 19h ba ñu julli mm, timis 19 euh, heures 20 ba 19 19 heures 20 ba 19 heures 30 kuréelu constitution dana jàng mun pare 20 heures 30 ba 21 heures kuréelu sélection dana jàng 21 heures ba 22 heures euh, sikurulaay daayira maam Cheikh Ibrahima Fall bi ñu sikkar 22 heures 22 heures ba 23 heures ñu bernde ñu ngi sàkk bu ñu berndee ba pare 23 euh, heures lañ bëgg mbir mi jeex ko képp koo xam ne bokkoo ci wàllu organisation bi mën ngaa dem bu ko defee waa organisation bi defar salle bi delloo bagage yi kon xam naa ne dañuy jox sañ mat euh, sëñ mat seen moom mu am bu baax a baax leeral moom mi nga xam ne moo yor wàllu programme bi sart yi ñu ci teg ak yeneen yi mu ci bëgg a jàll. waaw kon sëñ Modou Sène ñu ngi lay siyaare bu baax a baax comme jëwrin maam Thierno Amar liir na li nga xam ne mooy programme bi yow mi nga xam ne yaayoor micro central bi képp koo xam ne ab jàngkat nga wala tudd nañ fii sa tuur nga dem ba sa waxtu weesu nga ñëw bëgg dabe pour ñu jox la micro bi ndax da nga ko nangoo jox micro mu déet. waaw sëñ Assane loolu moom ren bëgguñu maam bu soobee yàlla ndax dañoo bëgg niñ ko tënke nii. bëgg nañ ñëpp seetaan ko parce que dugal nañ ko fi ñu ko war dugal fépp daanaka groupe whatsapp yëpp programme bi dugg na fa léegi dañoo fas yéene incha rabbi maanaam képp koo xam ne jox na la sa heure wax na heure bi wax na temps bi maanaam sa bu jotee na la fekk su ko defee nga maanaam nga nga jël sa temps maam képp koo xam ne nag maanaam am nga fi am nga temps maanaam ne ci maanaam moo moo xam néewu fa ba sa temps weesu moom nan la na nga xam ne sa temps dem na moom sa temps dem na su fekkee da ñëw fekk sa temps des cinq minutes yi cinq minutes yam des moom ngay continuer su jeexee bu ne laa ñaanal na nga ñaan ndax bëgguñu maam kenn maam kenn di mer ci bis ndax bis bi du bisu mer waaye képp ko xam ne sa temps jeex na ñu ne la ñu avisé la sa temps jeex na na nga xam ne kat bis bee demee noonu parce que lépp bis bi saturé ku sa ku sa temps jeex bu ñu la avisé nga ñaan te xam ne maam màggal goom képp ba kenn ku ci ne ñu rek ba ngaa ba ngaa fësal sa yéene kon na ko ñëpp respecté maam programme bi nu teg rek képp koo xam ne sa heure jot na nga ñëw teew buñ la waxee ñaanal tamit nga ñaan ndax noon lañ bëgg bëgguñoo maanaam jànn kenn way lay ñàkk kersa kenn képp koo xam ne la avisé nañ la nanga am sa temps moo jeex parce que bi maam benn bés dafa xat dafa xat daal te ci war def dafa bari kon nag ñëpp dégg noonu daal daal lañ ci bëgg a lañ ci bëggoon leeral suñu suñ suñu waaw kon mbokk yi bu ko defee rek ñu jox leen micro bi ngeen tàggatoo mbokk yi leen di seetaan ndax temps bi mi ngi ñuy xoj kon ñu jox maam Thierno Amar mu tàggatoo jërëjëf sëñ San kon ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di sant bu baax baax ci dalal bi di wax jërëjëf sëñ Touba moom mi ñu fi boole daana di ñaan yàlla sëriñ bi faj aajo yi ci barke màggal gi ñu jëm. waaw jërëjëf kon wax dëgg yàlla suñu xol na lool wax dëgg yàlla yàlla nañ ci daje ngërëmu sëriñ Touba ñëpp nag wax dëgg yàlla am nañ ci yéene ñu màggal ko màggal gu yéeme sax ci barke Seexul Xaddim kon wax dëgg yàlla ñu ngi ci ñu ngi ciy woo ñëpp daal ñu ngi woo ñëpp kon nag mbokk yi yéen a déggandoo sart yi nga xam ne ñi yor organisation bi ñoom ñoo ko fi teg ñu respecté ko rek kon bu ko defee rek ñu dellu siwaat ci suñu mbokk mi nga xamante ne nii moom la ñu àndal liggéey bi muy Western Union di leen fàttaliwaat rek application bi nga xam ne da nga am 25 pour cent ndax ñoom it ñoo ànd ak ñoom ci liggéey bi muy màggaluk Serigne tuwaa gi kon nag mbokk yi ñuy seetaan ñi ngi leen di jaajëfal di nuyu ki nga xam ne moo ñu nekkaloon ci caméra bi muy Gambien ak Serigne Gora Seck mbokki jullit yi mbokk mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.